fararaan moo doon cosaanu masdar boo si bëggee maa danga koy tëgg faala mu tolloog farara ñaari kem daje mooy ñaari sukkoon daje ñu jël benn sati si mu daaroo yokk mu daaroo fataa ko sukkoon araf ñaareel mu laa nga mu laaj kasara ndax mu daaf mu mu jóg mu daa daam war a jël benn bi sati si benn bi waaye mu ne ñu ne buñ ko defee ñaari sukkoon dañ daje ñu toxal kasaraag raagu njëkk gi jox ko faaga bu ko defee jël raagoogu soppi ko sadda mu nekk ya fir ru pour mm-hmm. ñu a mucc si ñaari kami bés bu ngi ama jog si laam kasara ko amar dafa gisam mu jëg mu daale na wér na bu raagee ñu asaf ñu seet ko mu wér ñu gisam mm-hmm. muy li yaf riir mm-hmm. ñaar raa dajee ñu seet ñu jël benn bi si si benn bi muy li ya fir ra bés bu benn ama jël laam amar gi ak yaa mu daal bi nga asaf ko mu des fir dawal fir dawal kenn doo fir waaye firra lañuy wax si bëggee ismu faal dañ koy teg faa'ilun mu tolloog faarirun ñaari kem dajee mooy ñaari raa njël benn bi sarti benn mu nekk faarun aji daw ismu mafool dañ koy teg mafoolun mu tolloog mafrurun si bëggee ismu zamaan ak makaan dañ koy tëgg maf'ilun parce que yafilu la boo ko tëggee maf'ilun منك مفررون دعنا مفررون سكرة في نهار كم دعي نيوري جل بن مسر سبن ويا بلا بوم نتخل مسكرة كي جوك فاج منك مفررون ما زمان بك مكان بس بقي اسم مسكرة دم قتك مفعل منك مفر رون اسكو بدي فعل مدافع مم ولا يفعل سخط صحيح هو اسم مصدر مفعل ليل مفر ولا ولا في مج مجلس اسم مصدر ابن زمان المكان مفعل ليل مجلس مفر داين نون لي صرفه ودافكي لازم su ko defee ñu war a jàng beneen bi mahmouz mahmouz de moo ko yële daanaka beneen rek nañ jël mahmouzu fa bu commencement bi ràgg dégg nga axasa ax axzan moo doon ci sax mazen boo si bëggee maa da nga koy tëgg la mu tolloog ah xasa boo si bëggee mu daal di ko sax mu daal fataak su ko def ñaare ba saa bu ne tamit laaj nga jox mu laaj dàmm ndax loolu la siwee dafa siwee dàmm mu jëm mu daal dàmm muy yàqu zu boo si bëggee amar yokk ci laam amar kasara ko amar dafa jësam mu jëm mu daal ni wér na bu raagee ñu asaf ñu seet ko mu wér ñu jësam muy li yàq xuz boo si bëggee benn amar asafal laam amar ak yaa mu daal bi sukkoon sës yë nga ne sukkoon googu dañ koy xasaf li tax fii pour oyofal mu des xuz mais cosaan li da nga am tëdd wasit da si compte bu saraf ni seen fekk mu daam nga daam fekk mu def mooy daam kasa nga fekk mu daam nga daam muy u u bu ko defee su kon ñëw alif gi ñëw njëkk dàmm ñu soppi ko waaw muy u xus loolu moo doon cosaan li waaye da koy da nga koy da ngay dagg alif gi rek li tax fi fooyee fa mu des xus jëlal moo kul ak mur loolu loolu lañ ñu nga yow si saala saalan moo doon cosaanu masdar boo si bëggee maat da nga koy tëgg faala mu tolloog saala boo si jógee mu daar yokk saas mu mu daara daamu ko amar dafay gisam mu jëm mu daar ñu seet ku mu wér mu jësam muy lies al boo si bëggee benn amar safa laam amar gi ak arfu mu daar bi sukkoon kenn mënu cee daree wax nga indi am tur wasila dale ci compte ba sarf ñetti la boo fekkee mu daam nga daam boo fekkee mu def mooy daam nga kasara nga fekk alfu ñetti bi di am nga kasara nga ñëw ngi fataa ko nga ñëw kasara mu is al boo si ñu faal da nga koy tëgg faailun toog saa ilun da nga koy mafulun mu tolloog masulun wa qiila innaka mansubun wa masulu ismu fool saala mhm. boo si bëggee ñu zamaanu makaan قول مصدر ميمي يب دنقول لك مفعل متعلق مسأل بس مصدر ميمي ممشي أك اسم زمان مكان يب تي فعل مضارع يفعل لا ولا يفعل ميم مفعل غير فعل مضارع يفعل لا ولا ميم مضارع لازم اسم اسم مصدر بيد فينك مفعل زمان بمكان بينك مفعل فعل مثال دنيس نيوم يوم يب مفعل لني dégg xaraa <coughs> mooy mu daaf mahmus ay laam xaraan moo doon ci da nga koy tëgg fan la mu tolloo xaara a nga bëgg si mu daara yokk sa mu daara fataa ko su ko fu ñaaree bi saa fu ñu tee lu mu laaj nga jox mu laaj fataa ndax loolu la siwee mu jóg mu daara daam mu yàqra u boo si bëggee amal yokk si laam amal kasara ko amal dafa ci mu jóg mu daara na wér na bu ràggee asaf ñu seet ku mu wér mu ci muy li yàqra boo si bëggee ismu faayil déedéet boo si bëggee amaar tam da ngaa saf laam amaar gi ak yaa mu daal bi sukkoon sës kenn mënu ci dara wax nga ne am sas was si dara si compte ba saraf ñu tel ba boo fekkee mu dàmm nga ñëw dàmm am sëgg boo fekkee mu def mooy dàmm kasar am sëgg nga fekk ko mu fataa nga kasar am sëgg muy iqra yaa nga moo tax li ñu njëkk wàcc ci alquran muy baat bi mhm. iqra nii lañ def ba am iqra ñu ko jëlee si xaaf raa am sëgg ismu faan boo ko ci bëggee dañ koy tëgg faailun mu tolloog xaari un nga bëgg ismu mafoon tëgg ko mafoolun mu tolloog maqru un ñu jàng ismu zamaan ak makaan ak masdar muy maqra dégg kon defe naa ne foo fekk di fi'lu saxiix moo xam saalim la mahmuuz la mudaaf la war nga koo sarfu man nga koo mën a sarfu jëlee ko ci maadi yóbbu ko ci mu daara yóbbu ko ci am yóbbu ko ci mu faayil yóbbu ko ci ismu mafoon yóbbu ko indi ci masdar mii mi indi ci ismu zamaan ak makan loolu war naa war a yomb aqsaamul mootal kaaji fi'lu bu ràgg yan qasimu dana séddali ko al mootal fi'lu mootal ila misaal ci فعل مثال وأجوف أك فعل أجوف دينغ وناقص أك فعل ناقص ولفيف أك فعل لفيف دينغ فعل موتال براغ أمن مثال ak ajwaf ak naaqis ak lafif ñeenti xaaj yi bu nekk nag ñaari xaaj kon fexlu bu ràgg mooy bu am alif wala waaw wala yaa ñaata xaaj la ñeenti xaaj misaal ajwaf naaqis ak lafif fal misaalu fexlu misaal maa mooy bi nga xam ne intal la ràgg na faahu commencement ba bu ràggee waaw kooku almisaalul waawi la naxwu comme waada digg na oya sara yomb na dégg nga mhm. wa sumiya tuddee nañ ko bi zaalika ci loolu li annahu ndax moom yu maasilu dafay tolloog assaxi fi'lu bu wér fi adami i'laali maadihi si ñàkka ragal maa dem maanaam moom feelu maa dem defuñ ko inlaal inlaal moy soppuñ ko alif waaw gi dañ koo maas noonu bokk fa waxada nga dégg te bu te bu doon xawala la jugon way dañ ko def inlaal def ko alif moy qala fii defuñ ko inlaal kon dañ ko tuddé misal ndax dafa niro sahih parce que ràggaluñ maatiif والاجوف فعل اجوف ما تلال موي بو خن راغنا عينو ديغ با نحوكم قال واخنا وبال اك تور نندخ قال واخنا بالا تور نندخ ليغي ليغي ليغي قال دا راغ لوم راغي واو باسكو تي سان لي واو لو مداري مولا كي يقول baara it cosaan li waaw loon parce que yabuulu la turando hmm? wa summee tuddee nañ ko bi ko ci loolu aj waf li xuluwi jaw fii ngir wéet digg ba ay wasat yi digg ba mais xarfi saxi ci araf bu wér digg ba dafa wéer wéet ci araf bu wér maanaam amul araf bu wér hmm. moo tax ñu tuddee ko aj waf mooy boo xam ne digg ba amul araf bu wér hmm. alhamdulilah woy sama dañ ko tuddee woy sama dañ ko tuddee ay dem ba tey za salaasa borom ñett aj waf dañ koy tuddee za salaasa borom ñett lu tax li annoo ndax moom ànd isnaad yi buñ ko wéetee li taayil faayil ci taawu faayil hmm. yasiru day mujj maa ànd ak taawu faayil bu wala salaasa al ahruf ñetti xaraf boo ci wéetee taawu faayil moom dafay des ñaari araf nga bool koog taa gi mu ñetti araf moo tax ñu dégg borom ñett. xaala mhm. yokku si taa xultu ngay wax baa biatu kiltu loolu dafay war ne eh, am na xaraf bu ñu fa dagg ndax fenn bi si saa ñett la woon. Mhm. soo ko wéetee si taa faale da dagg xaraf ràggoo moo tax nga ne xultu ak biatu loolu tax ñu ko tuddee salaasa. كقلت لك قلت وحنا وبيعت جاينا في قال تي قال جي في وحنا وبا جان لي غنونا رفتنا مي بامي وحنا هو قال مو نسيت وبا فور وانا اجو في نياري قاج لا اجو في يايا اجو في واوي مي نياري مثال اندي ييب تي كو اجو في واوي لا مي با جي سوف مو اجو في يايا لا لا خامل فانا اجو في واوي لا دا ngay xol mudaara bi yaquulu mu ne ma xaala gële alif googu ci sànni waaw la woon mm-hmm. baa yabiu yabiu moo ne xamal ne yaa gële mm-hmm. gi gis yabiu moo nekkoon ci alifu baa googu kon baa ci sànni alif gi yaa la woon mm-hmm. wa ñaareel ba dégg ñaareel ba maatallat mooy loo xam ne ni ràgg na laamuhu muj ga ndax wa xaza gi firi xeex na kooku lum ràggee kooku waaw la ràggee yax zoom mooy mu daal mm-hmm. rama gi firi sànni na lum ràggee yaa li lay xamal ne rama yaa la ràggee boo gisee alif gi dañ koy bind ci kaw yaa lu mel ni yàlla lañu def bind ci alif soo gis loolu rek xamal ne fenn boobu yaa ràggee mu daaro bi yëpp yar mi lay doon. Mhm. waaye bu alif nii ci kaw mu jub comme alifu daa ak gaza gi. Mhm. xamal ne cosaan alif gi waaloon. kon naaqis am na ñaari xaaj naaqisu yaay ak naaqisu waaw loo xam ne mujj ga alif la ak loo xam ne mujj ga loo mujj la waaye yëpp alif lay nekk nag si maadi summiya tuddee nañ ko mhm. moom naaqis aydan ba tey zal arbaa borom ñeent lu tax li àndoo ndax mu mel ne isnaad yi boo ko wéetee li taayi faayil ci taawu faayil yasiru day mujj maa ànd ak taawu faayil ga arbaati ahrufin ci ñeenti xaraf hmm. aywa indil xasa xeex na nga wéet ko ci nga def ci taawu faayil naan xasawtu kon ñeent loolu rama yokk ci taawu naan ramaytu kon ñeenti xaraf moo dañ tee ko zal arbaa واللفيف واللفيف نك موم قسماني نياري خاج لا مفروق لفيف بو تقاليكو هو موم ما تلات موي بو خامنا راغنا فاؤه دنگا ساغا ولامه اك لامغا لفيف موي لو خامني كوماسمان با اك مودغا دافا راغ كو موي لفيف مفروق باسكو نياري حرف راغ دي سيسلو وين نا وكم وفا متلنا وقا فكنا مسلنا Hmm. wa summiya tuddee nañ ko bi zaalika ci loolu li kaw ni xarfi sahi ngir nekkat ak xaraf wu wér wa faariqan daa ji teqale bayna xarfay illa diggante ñaari araf ràgg ya hmm. moo nañ tuddee ko al lafif al mafruq hmm. naaqis nag tuddee nañ ko wa summiya bi zaalika li nuqsaan yi ngir wàññeeku bi mu wàññeeku loolu waxuma ko woon de bi xasfi aaxiri ci xasaf mujj ga fii baari tasaarif ci yenn si sarf naaqis dañ ko tuddee naaqis parce que boo koy sarfu yenn xaraf yi dafay daanu comme hmm. gaza boo boo ko wéetee ci jigéen ju fi nekku danga naan gazat xarafu raag wa nga ko ci jigéen ju fi nekku nga ne ramat ko dagg pourtant rama yet la waroon doon hmm. moo tax ñu tuddee ko naaqis la ma ko tudd mafruux nag dañ ko tuddee lafif al lafif la parce que am na ñaari araf yu yu ràgg hmm. yuñ fa tappale te ñaari araf yooyu araf yu wér da leen teqale moo tax ñu dégg allafif almafruq wa maqrun ak lafiful maqrun woo moom maatalal mooy boo xam ne ràgg na ay noo digg ba wala mu ak mujj ga ndax wa tawaa lem na rawaa nandal na wa su mee tuddee nañ ko bi daalika ci loolu liqtiraani harfi illati ngir sësaloog ñaari araf ràgg yi baadi ma lenn li bi baadiñ ci lenn ñaari araf ràgg yi dañoo sësaloo moo tax ñu tuddee ko allafif almaqrun kon nañ ci dégg na fi'lu bu ràgg misaal la mooy woo xam ne commencement bu moo ràgg alif wala waaw bu ràggee li kon waaw wala yaa bu ràggee waaw misaal waaw yi la bu ràggee alif noonu lay ràggee waaye alif loolu ci saani waaw yi la bu dee ci saani yaa la aju woofu comme baa yebbiwu aju woofu yaa yi la kon mhm. xaala yaquulu kon foofu aju waaw yi la mu daara mi wala mastar mi xamal ci saani naaqis mooy loo xam ne mujj gi dafa ràgg alif nag fay gis waaye alif gi buñ ko bindee ci kaw yaagu ndaw googu noonu nga xam ne ni alif googu ci sànni yàlla kon naaqis yaay la kom rama yar mi nga mm. mu daari wan ne leen yàlla bu dee alif gi dañ ko bind noonu mujj noonu ci kaw rek nga xam ne alif gi ci sànni waaw la comme xaza yaxzu kooku naaqisu <laughs> alwaaw yi la mm-hmm. mu ne waaju taqaasim yi la séddale dégg nga دقا بلا سيد لي التي ما يقمنا جرى دونا في الفعل تي فعل يجري له الى البتاي في الاسم تي اسم لا نيوخ تي فعل مو لا نيوخ تي اسم اسم دا فاي ام سالم اسم بو خا بو وير لا ناوا شمس جنت شمس امنا الف م? لا امنا وا امنا يا كون كون اسم بو خا ني بو بو وير لا دين كوكو Sahihler kum salim salimler. Değil mi? Hı? Amrun bir. Sahih la waaye Mahmouz la Mahmouz gi fan la ci commencement bi. biirun teen kooku Mahmouz la Mahmouz gi ayn naba kibar, xibaar Mahmouz ya la yëpp ismu su ko defee mu daaf jawwun jawwu kooku mu daaf la waaye ñaare am na waaw de moom dégg nga dañ koo maas rek wéral ko waaye am na waaw dégg nga ak ka jug kooku mu daaf la parce que am na ñaari yaay yuñ daje wajhun anam kooku misaal yaay la yum nun barke misaal waaye mooy wajhun yum nun barke misaalu yaay xawlun wax ajoofu waaw sayfun jaase ajoofu yaay wasu digg mu rek dalwun siwo kooku naaqisu waawi la zabyun kéwél naaqisu yaay la waxyun waxyu naaqisu yaay la bul bul bul bul ok waaw jawwun tamit boo xoolee foofu moom it moo gis yu yooyu naaqisu yaay la war a doon parce que seen mujj yàlla war yàlla waaw fi mu di yàlla léegi mu daax baa ngi nii mooy xaddun doyo kooku mu daax la mu daaf sulaasi bul bul bul bul kooku mu daax la rubaay hmm? hmm? sarf si fiñ si mbaan dégg nga hmm. eh, misaal waaye waxda waxdan moo doon cosaanu masdar boo si bëggee maat da koy dëgg faala mu tolloog waada boo si bëggee mu daal yokk sax mu daal fataa ko sukkoon arfu ñaareel saaf ni te mu laaj nga jox ko mu laaj kasra na dafay fenlu misaal yi moom kasra lay war def dañ ko mu jëg mu daal damu muy yow idu waaw nekk si diggante ñaari mooy waaw xëcc fata mënul xëcc kasra seen diggante nekk ñu xasaf loolu moo andi yaa idu boo si bëggee amar da nga si yokk laa amar kasra amar dafay gis mu jëg mu daal ne wér bu raagee ñu asaf ñu fekk mu wér mu gisam muy li yaa idu boo si bëggee ismu euh, fa beneen amal da ngay mu daaro bi mu des xit foofu amul andi al alif boo si bëggee ismu faayil da nga indi saani masdar bi muy waxaa da nga tëgg ko faayil mu tolloog waa nga bàyyi noonu boo si bëggee ismu xool da nga tëgg mafxuulun mu tolloog mawxuudun ismu zamaan ak makaan ak masdar da nga koy tëgg mafxilun mu tolloog mawxidun mooy ismu zamaan bi makaan masdar parce que feelu mhm. léeg-léeg mu nekk faala nekk yaf alu wala faala yaf alu bu nekkee faala moom it noonu la comme wadaa yadaa faala yaf alu la même sarf la xanaa waa gi diggante ñaari noonam yi ñaari noonam yi moom ñoo bokk bàyyi ak yaay foofu wadaa wadaan moo dem ci salamatin bëgg bëgg mat danga koy dégg faala mu tolloog wadaa dégg nga boo si bëggee mu daara yokk saat mu daara fataa bu sukkoon arafu ñaareel mu yow seen xarfu ñetteel lu laaj nga jox ko mu laaj fataa ndax mujj ga dafay xarfu alq parce que fenn musaar mujj lay doon mu jóg mu daa moom muy yow daaw ñu ne ñu xasaf ko ndax xiyaas ko ci waat ci fenn misaal boo xam ne ni fan la yeful la ndax ñoom ñaa ñu fan lañ waaw nekk ci diggante. ñaari fata ñu xasaf ko ndax xiyaas ko ci bële ndax nekkul ne saa yu waaw nekk diggante ñaari fata a xasaf kon ma dañ xiyaas parce ñu xasaf ko mu jëm mu daaroo damu muy mu mu daal fata ko nekk si diggante ñaari fata ndax xiyaas ko ci moom ci sànni faala la ñu xasaf muy yaddaxu mos bi nga ama yokk si laam amar kasara ko amar dafa sax mujj mu daa ne wér balaa gi ñaa saf mu mu wér mu daar mu des daa tegal ismu faayil tëgg ko ismu faayil da cosaan yëpp wala nga tëgg ko faayil mu tolloog waati on ismu mafool tëgg ko mafoolun mu tolloog mawduun ci lañ jëlee xadis mawduun dégg zu zamaan wa makaan danga koy tëgg moom mafilun ba ci masdar bi mafilun mu tolloo mawdiun ismu zamaan faala yafal la ak faala yafilu yëpp ma rek naka noonu faila danay am yafalu ci fi'lu misaal waaye foofu waaw gi doo ko dagg ci mudaare bi moom laa doon junj léegi comme waji la wajlan moo doon la boo mu daal yokk si cosaan li faila noonu nga su bëggee am yokk si laam amar kasara ko amar dafay sa mu jël mu daal ni wenn bu daa gën mu jël ku mu wér mu ci muy li yow jal yaa ngi foofu boo si bëggee beneen amal eh, asfa laa amal yaa mu daal sukkoon sës kenn mënu ci dara wax nga ne am sut wasi dara ci compte ba sarf ñeteel boo fekkee mu daam nga daam bu fekkee mu def nga kasara nga kasara muy iw jal ñu ne kasara jiitu waaw ñu soppi waaw gi yaa muy i jal boo soo ismu faa li ngeen cosaan li muy wajal nga tëgg ko faa lu mu tolloog waajilun ismu mafoon tëgg ko lu mu tolloog mawjuudun ma zamaan ak makaana masdar bi dañ koy tëgg mafilun mu tolloog mawjilun kon misaal waaw yi ñetti anam yooyu la am dégg mm-hmm. misaal yaay la dégg misaal yaay moom masdar mi eh, ak ismu zamaan makaan bi okay mafaal lay doon yasura yasaran moo doon ci waan masni boo bëgg ma da nga tëgg faala mu tolloo yasara nga bokk ci mu daa yokk sa araf mu daa fataa ko sukkoon arfu ñaareel seeram ñu tamit laaj nga jox ko mu laaj dàmm ndax dafay siwee dàmm mu jël mu daa dàmm mu yeesu boo si bëggee amar yokk si laa amar kasar ko amar dafa gisam mu jël mu daa ne bu daa gën yasar mu seet mu gisam mu yeesu boo si bëggee day amar xasaf laa amar gi ak yaa mu daal di sukkoon sës kenn kon ba sax bu fekkee mu daamu nga daam bu fekkee mu def lu may daamu nga kasara nga fekk mu daam nga daam muy uyu muy uyu suur yaa ñëw njëkk daamu ñu soppi ko waa muy uyu suur dégg nga dégg naa ni ñu jëfandikoo baat bi néew na lool bés ma gis mu faal dañ koy dégg faaxilun mu tolloog yaasirun si mu jëlee yaasir ismu maf'ul tëgg ko maf'ulun mu tolloog maysurun may suur moom siiw na ismu zamaan ak makaan ak masdar yëpp dañ koy tëgg mafal mu tolloog may sar goo mu andi may sar loolu kii ñu ñëw ci ajwaf ajwaf waaw yi ak yaay yi am xaala xawalan moo doon ci saanu masdar xawalan moo jëfee maa dañ koy tëgg faala mu tolloog xawala mhm. fataa diis ci kaw waaw ñu xasaf fataawu mbokkam mbokkam fataa liif mu andi mhm. eh, ci kaw waaw ñu xasaf waaw gi mhm. bu defee fataawu mbokkam maanaam xagu njëkk googu xaw mbokkam parce moom waaw du mbokkam mbokkam fataa gi liif la xaala boo ci bëggee mu yokk sax mu mu a rafet ajow fu waawi mu jëg mu daal daa mu yàquwulu yàquwulu ñu ne xana fraag yi maas di waawi xaaf ga ko jiitu wéertu sukkoon jaaduwul waaw gi jox xaaf mu yàquwulu boo ci bëggee ama yokk si amar kasara amar dafay sa mu yëg mu daal ne wér na balaa asaf ñu seet ko mu wér mu gisam muy yàquwul ñaari sukkoon dajee bu su buy dund ak asaf bu dee fa bu dee mooy xëccaan sukkoon buñ maas mooy dund ñu asaf si li yàqul amar nasaba laahu amr yaa mudaari nga mu des qul boo su bëgg ismu faayil da koy tëgg faayilun mu tolloo xaawilun ñu ne ismu faayil buy aju wof buy aju wof dañuy soppi xarfu ràgg wa amza ñu soppi waaw gi amza mu nekk xaa'ilun boo su bëgg ismu mafuul da koy tëgg mafuulun mu tolloog maquwu lun dégg nga nee na xaraf di xaaf gi maas eh, di waaw gi maas la ko jiw di xaaf gi sukkoon téwér jaaduwul ñu toxal maas ko waaw gi jox ko xaaf gi mu nekk maquulun ñaari waaw dajee ñaar sa benn mu nekk maquul maquul mooy lu ñuy wax mooy ismu fam dégg nga nag boo si bëggee ismu zamaan ak makaan dama koy tëgg mafalun mu toll ak maqwalun fataat di ci kaw waaw ñaxasa fataaw mbokam mbokam fataat def muy maqaal même ismu masdar bi noonu la parce que yafunlu la hmm? mm-hmm. ismu zaman bi makaan bi masdar bi da nga koy teg mafaalu mu toll ak maqwalun fata di si kaw waaw ñu xasaf fata wa mbokkam mbokkam fata lif mu nekk ma maqaal hmm? mm-hmm. loolu mooy hmm, mu tuddati kii ajofu kii waaw అజోఫుయాయి tey Aïcha Aïcha moo doon cosaanu masdarni boo si bëggee maat da nga koy dëgg faala mu tolloog Aïcha fataa di si kaw yaa ñaasa fataa mbokkam mbokkam fataa liif muy Aïcha dund na boo si bëggee mu daaro da nga si yokk arfu mu daaro fataa ko sukkandiku arfu ñaareelu si arfu ñetteel laaj nga jox ko mu laaj dàmm déedéet sukkandaat fu ñaareel salaam itam laaj nga jox mu laaj ka salaam dafa yaay mu jëg mu daal daam muy yaayichu xarafra gi maas mu yaagi la ko jiitu sukkoon tébar jaarul ñu jël maas ka yaagi jox ko ayin nga muy yaayichu moom wax ba su bëggee ama yokk salaam amar kasara ko amar dafay gisam mu jëg mu daal ne wér na bu ràggi ñaasaf seet ko mu wér mu gisam muy yaayish ñaari sukkoon dajee buy dund ak buy dee ñu xasaf bu dee bi te mooy boo si bëggee benn ma asfallah ma yaa mu daal mu des inch dundal boo si bëggee faayil teg ko faayil mu tolloog aayishun ñu ne ismu faayil bi aji woof ko am sa ñu am sa muy si bëggee ismu da koy tëgg mafoolun mu tolloog maayusun ayasha nga tëgg ñu ne ismu faayil dégg maayuusun lu njëkk waaw ismu maf'ul buy naaqisu buy buy ajoofu yaay lu njëkk waaw ismu yi dañ koy soppi kasra ñu soppi yaa googu dàmm lu njëkk waaw ismu maf'ul bu dàmmee te ajoofu yaay yi dañ koy soppi kasra ñu soppi waa eh, dàmm googu kasra bu ko defee kasra moom mbokkam mbokkam kasra yaa kon waaw foo mu soppi ko yaa mu nekk maa yi sun maa yuusun la woon la njëkk waaw ismu mafoon tey ajuufu yaay yi hmm. dañuy soppi dàmm ga bu dàmmee dàmm ga dañ ko soppi kasara maa yu léegi loolu yii nga koy def kasara foo moo mbokkam mbokkam kasara yaa kon waaw googu foo ñu soppi ko yaa muy maa yi sun maa yi sun ma yi sun ñu ne xarafu ràgg yi maas mooy yaa gi la ko jiitu daan gi sukkanti jaarul ñu toxal ko muy maichun ñaari yaa daje yii la léegi la ñaari yaa daje benn muy maich dund dégg loolu mooy kii bi boo ko déggee ismu zamaan ak makaan xam nga ansa yaichu la da nga koy mu tolloog maichun xaraf raa gi maas la ko jiitu sukkoon tëbër jaatu mooy ayin gi ñu toxal maas yaa gi jox ki muy maish ala siixati ismu mafoon moo doon cosaan da koy tëgg mafalun mu tolloog maaya shun xaraf raa gi maas la ko jiitu sukkoon tëbër jaatu ñu toxal yaa gi jox am na na ixtilaaf ci ajoof dégg nga ajoof yaay ajoof waay moom waxoon na ni ñu ci waxoon ismu zamaan bi makaan masdar la ajoof yaay nii ma wax muy mafal mooy masdar ma di tolloog maash ismu zamaan bi makaan bi mafil tolloog maayish loolu moom xam mooy toll dëppoo xiyaas lañ lañ doon jàng waaye am nañu ne Euh, ismu zaman beeg makaan beeg yëpp dañ lay tànnaloo bu la neexee fata bu neexee kasara nga def ko maas wala maas yaay tànn dégg am na ñu déedéet loo gis arab yi kasara kasara loo gisoon ñu fata fata ko waaye amul xiyaas bul ci xiyaas dara mm-hmm. am ñuy wax loolu ne comme que ajoof la bu ci xiyaas parce que man nga see xiyaas baat boo xam ni doo ko miin kon loo gis arab yi doon ko waxee rek waxee ko noonu moom ajoof am am na am na wuute boobu waaye nag lii moom mooy régal bi nga xam ni moom lañ tëral moom lañ jàngal dégg nga su ko defee daf mel ni sarf nañ ko ajoofu yaay yi ak ajoofu waaw yi su ko defee beneen dar suñu war dem ci naaqis إن أريد إلا الإسلام واستعنت ما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته